bismillahi rahmaani rahim wattabau ñi topp ñoom yahudi maa tatlu soyaatiinu li leen saytaani jàngal ala mulki suleymaan ci nguuru suleymaan gi soyaatiini da saytaani dañu ñëw ci yahud leen wax ne suleymaan njabar la doon jëfandikoo moo tax ñi toppoon ko moo tax jinne yi toppoon ko yàlla wax ne wa maa kafara suleymaana suleymaan weddi ndax lan lan moo tax mu ne weddiwul mooy lan ku jëfandikoo njabar dangaa weddi suñu borom wama kafara suleymaana suleymaan weddi wutoon walakin shayatina kafaru waaye kay saytaani ñoom ñooy weddi woon yuallimuuna naasa sihra ñoom ñoo loon jël di jàngal nit ñi njabar wama unsila malakay ni wàccuwul ñaari malaka yi bi baabila ci dëkk bi ñuy wax baabila ci xiraq xaaruut ak maaruut mooy ñaari malaka ya wama yuallimaani duñ jàngal kenn wa maa yuallimaani min ahadin duñ jàngal kenn xataa yaqulaañu lu dul ñu wax ko ne ko innama nahnu fitna ñun yàlla dañ leen nattool dañuy leen ñëw fi pour ñu nattoo leen ko yàlla moo leen nattoo si ñin bu leen jàng njabar ndax njabar baaxul innama nahnu fitna ñun fitna lañ fala takfur bu leen weddi ndax lan bu leen weddi mooy bu leen jàng njabar ndax njabar boo ko jàngee di ko jëfandikoo danga weddi danga weddi suñu borom fa yata'allamuuna ñuy jàngal ñi nga xam ne dañu dëgër dañoo dëgër bopp ñoo xam ne nanguwuñ dégg min huma si ñoom ñaar ñoom ñaar dañuy jàngal ñoo xam ne nanguwuñ dégg daal min si njabar gi maa yufarriqu bayna al mar'i wa zawji li xam ne day tàqaleek nit ak soxnaam ñi jàngale loo xam ne nii day tàqal nit ak soxna day tax soxna si ak jëkkër ji bañante wama wama bi mu doori na loolu du lor kenn nag seen njabar gi mënul lor kenn min ahadin mënu lor kenn illaa bi iznillah lu dul mu neex yàlla njabar am na waaye nag pour mu laar kenn yàlla lay neex waaw ku njabar dal it na ne ni yàlla la neex rek waaye benn nit mënul def loo neexul yàlla waaye ki mënul def dara nit ki te neexul suñu borom wa yataallamuuna ñuy jàng dor yadurruhum loo xam da leen di lor wala yanfaahum te du leen jëriñ nit ñaa ngi jàng njabar nga xam ne jëriñu leen da leen di lor rek ndax bu dee am nga njëriñ fii ci àllaaxira yow mal xeyam la te yow mal li gën a yàgg bi day jeex yow mal amul fu mu yem ba demee ba àjjana amul yemukaay maa yadurruhum loo xam ne da leen lor wala jëriñ di jàng loo xam lor te du la jëriñ loolu amul benn jëriñ waqad alimu liman istaraahu xam nañ ñoom lu ñu jëndee seen téere yi mooy lan dañu jël njabar jëndee ko seen téer yi wax yi bi leen yàlla wàcciloon ci kaw suuf ak seen téere yool nga xam ne wax yi bi ñu wàccoon ci Muusa muy ay téere tawraat ñu war ko jàng ñu jël ko wecc ko njabar ñoom yahudi waqad alimu xam nañ liman lu ñu jëndee seen téere yi maa lahu fil axirati min xalaaq yowmal qiyaama amuñ fa dara amuñ fa benn luñ fay kii ndax ñoom dañoo jël seen téere jëndee ko njabar bi sama staraw yées na li ñuy def anfusuhum yées na ñoom li ñu def law kaanu la ya'lamuun bu dee xam nañ ko sax bu dee xam nañ li ñu def yées na li ñu def noonu moo yées jël sa téere bi yàlla wàcc nga wécc kook njabar di jëfandikoo njabar bàyyi sa téere bi la sa borom yónnee law kaanu mun donte xam nañ ko sax law annahum amanu bu doon ñoom yahud dañoo gëm wattaqaw ñu ragal yàlla la masuubatun yàlla dana leen bindal tiyaaba min indillah tiyaaba dana ñëw mu jee ko si yàlla xayrun moo gën law kaanu yaalamun bu doon xam nañ law annahum bu doon yahudi amanu gëm nañ wattaqaw ñu topp suñu borom la masuubatun danañ am tiyaaba min indillahi boo xam ne si yàlla lay jógee wala yàlla dana leen fay fay goo xam ne si suñu borom lay jógee law kaanu yaalamuun bu doon ñoom xam nañ sax yaa ayyuhal lazina aamanu yan jullit ñi laa taxulu bu leen wax raay naa muñal ñi xuuloo wax leen um suur naa xaar ñi tuuti wasma nga déglu ñu déglu ñu may ñu tuuti daal nga déglu ñu walil kaafiriina azaabun aliim yéeféeri nag am nañ mbugal mu rëy bu jee ko seen borom yahud dañ laan wax ni raay naa jublu si koo xam ne ni boppam boppam dafa kii dafa ku dof daal den ko wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax yàlla ne bu leen la seen amoon yéen jullit ñi laa bu leen wax raayna muñal ñu may ñu tuuti ñi mën koo mokkal yahudi dañ leen wax raay naa jubli koo xam ne ni dof la koo xam ne ni xelam matul dama tax na leen léegi jullit yéen ba leen waxati raay naa xuulu wax leen unsur naa may ñu tuuti wasma nga déglu maa ngi tuuti nga déglu ñu ñu wax ba xam li ñu wax noonu la am déet kaafirina nag yéeféeri azaabun am nañ aliimun mbugal mu rëy ci yawmal xiyaam wa maa yawaddu lazina kafaru ñi xam ne dañoo weddi yàlla yahuudi ak ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla min ahlil kitaabi ci yahuudi wala nasraani walaal musrikiina wala ñuy bokkaale ñi xam ne ñu jaamu xaram an yunazila alay an yunazila alaykum min xayrin bëgguñ yéen jullit yàlla defal leen lu baax yiw min rabbikum bu jëyee ko seen borom bëgguñ benn yiw bu jëyee ko seen borom di ñëw si yéen wallaahu yaxtasu bi raxmati te xamuñ yàlla moom mooy yërëm ku ko neex moom mooy xewlal ku ko neex wallaahu sul fadlil azim yàlla borom gëndeel la